من ظن غير الله يغني أو يضر mbokki taalibe yi mbokki jullit yi ngir ngeen mën a am ay xibaar yu sell bàyyi ko ci dëkk bu tedd bii di tuubaa ak li ko wër ak mbooleem àdduna bi wërngal képp abonné leen ci seen chaîne Texcom TV Bamba Texcom TV Bamba chaîne bu wóor ànd ak xibaar yu sell. tur bi Sow. mën nañoo xam ban localité ngeen bàyyeekoo. waa ñu ngi bàyyeekoo mbuur mbuur lañu jóge waa mbuur ngeen jóge ñëw ba fii ci màggalu Poroxaan gi ñu leen laaj nan ngeen dundee ba si Soxna Jaara bi. waa dañoo jógee Mbour ànd ak Pastef nag. andak sunu jawriñ jele di Adja Mbaye ak li mi nga xamne moy sunu njit jiite nu ba am posteef gu dawe Touba euh, Mbour be ba Poroxaan ànd ceeg mbekté nak ak kontante ñun ñi and ak jokku ci moom ñëpp tubaarkàlla ma sha Allah ñi tok ni ak ñene fele yépp ñepp and ak mbekté ak posteef gu wor nak kontaan ñu fekk ci soxna jaaratu laa mu jaral lu lu ne nag kenn ku ne passé gu ma nga andale ak xol ak yene ak di ñaan yalla yalla nañ fi dajale ay téméré ati ati ati at mu and ak wër ak gudd fan ak yene ni jaar lepp lu ñu indi ki dekk maam jaara bi yalla nako sunu maam jaara ful di ñaan yalla indi ay millions di gëreem nak soxna maam bu sa me xamne mom la yalla bolé soxna mbayeng li ba mu ubil mam ba mu jox ma mbayeng li daayira bi ba ni mën a ci mom bay ñew tub bay ñew poroxaan ndax nak ginnaw yalla ko soxalu na ak jiw mo nu xalal yoni ubil nu buntu bi nu ba nu mën and ak poste bëgg mam jaara bay ñew ki dekkam bi nañu suñu xol set na guuy lepp luñ fi indi rek asaka yéene la ci mam jaara kenn ku nekk nak bu sañonté gamu gi mo koy def magal gi mo koy def ndax kontaan ak positif, ak dëggu. maa ngi tudd Soxna Penda Fall Touba Ndo Fall daayira Soxna Jaara Porokhane. waaw yaay booy ñu bëgg a xam nan ngeen dundee ba su gi. gi neex bu baax baax rek di ko ñaan di ñaan yàlla rek yal nañ ko teewa rek yokku ba yëg ko rek soxna jaara moom kenn la rek mooy genn ji am magal gi da fas yéene koo liggéey rek te yalla tax nak mom waaw wax dëgg yalla di sant bu wéré wér rek dara manqué wul wax dëgg lépp lépp nga ne gañu wax dëgg yalla sant bu baaxa baaxa baax rek te di ñaan yalla téwé ko nagandi déwén rek te wér ak wér la yok ba yëg ko rek wasalaam. waaw alaykum mbooloo mi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñu ngi leen di ñaanal yalla yok ko xéewal yokk man gi ñun ñi ngi jógee ba jowal jokk ci mambu solo rek nak top ci gannaam di ko sant di ko gërëm yàlla nañ yàlla dool defal sutura doole ñuy xéewal doole ñu man gi ba at mu ñëw man koo teewee rek ngir maam jaara bu so ndax amuñu fayam maam bu so amuñu fayam lépp loo xeen bii rek dana jëmalee daara bi kanam rek maam bu saa ngi teg ñu ne duñ ci yàq dara lu mu sant suba ba ngoon ñu ngi ci gannaawam di ko ñaanal gudd fan ak ak tal waaw yal nañu yàlla defal jàmm ñun ñëpp yal nañu yàlla xaadimu rasul taxaw maam jaara bu sa dolli ñoo taxaw ci barke Cheikhul Khadim waaw ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant sunu waa daayira yi ñu àndal ñoom ñëpp bu ñu maam. yaay booy mun nañoo xam ban localité ngeen jógee. ah. fan ban dëkk ngeen jóge ñëw pour. ñoo ngi maam bu sa ñoom bokk fu ñu nekk Joal lañ jógee waaw daay Joal la jokk ci maam bu sa kii mooy sunu jawriñ Daba Fall wa di sante rek momi diko di nak ndax bu ko la ko maam bu sa wax mu oñu telephone téléphone wax ñu ko ñu jog tap ci ganam lu ñu sante suba ba ngon ñu ngi ci doon mourid bay Faal rek amuñu bëgg amuñu bañ luy yaq rek lañuy bañ nak waye luy defar mom ñu ngi ci kanama wa baxna di leen sante yéen it yi wax dëgg yàlla amuñu seen fay ndax Joal la won ci ko señ ba ñu ngi leen di sante jëlon nañu fofu ñëwaat fi mu ñuy jëlaat kon yàlla yàlla jëmale eh, kii bi kanam moom mi yàlla dolli ko taxaw ba at mu ne mu defar ñu ko dund ba mu doon ay kii kii xam ne kàttanu yàlla baax na jërëjëf. jërëjëf yaay booy kontaan na. bismilaahi mina seytaani rajiim soxna si ñu ngi lay nuyu ñu ngi ziare ziare mboolem auditeurs yi ak auditrices yi seetaan seen bi. wañu dal mu ngi ni wañu liggéey serigne touba rek dañ ko jappé ndax ku nek xam na né jiwalo lañ joggé waye bu ñëwé fi ñu faral lañu ci wañu and ci ak suñuy jëwri ñu ci melni serigne safa kan serigne gorotal ak bay mor aw ñom ñu gën ko xam ci mama di dukumba ñom ñep ñu nek ci wañu deug yalla liggéey serigne touba dal lañ ko japp ñun tay ñu ngi ñaan sakku ci suñu borom defal ñoom ci ngërëmal Serigne Touba loolu daal moo nekkoon kàdd yi nga xam ne nañ kaa yëkkati fii ñu taxaw ñu jégul nag bu baax ndax xam nañ ne ñun moom mënewuñ wax lu tiis la ci ñun ñu taxaw di di leeral ñi mën a leeral mooy jëwriñ yi ndax buñ nee jëwriñ yi nañ ay jëwriñ yu mag yu nekk ci dal bi ñu mën a leeral waaw ñu jégul lañ ci mënoon kii ci kanam nag waaw ñu seetlu ne waañ bi bëri na mbooloo te xéewal yi macha allah mun a xam ndax waañ bi euh, fédération la wala yéen da ngeen a ñëw fii nii ku ñëw rek jokk si waañ bi nu nu mu waañ bi tëddee daal. waaw waañ bi nag comme niñ koy waxee rek li ñuy door a tàmbali liggéey bi di ànd ak euh, ñoom suñu Moustapha Kane mi maanaam ñoom mooy jëriñ waañ wi boobu peut mbooloo mi tolluwul woon nii waaye comme Sëñ Tuubaa li ñu wax na am tànk ki ginnaaw tànk kanam la am loolu mo ci feñ sa buñu dem dal gis mbolo mu dolli ku am pass pass bu am bu melni ñun bi amon bu ko defé ñu am yene tamit ñom bu ñëwé suñu kanam ak suñu jëfëlin walé né ñun ak yéen ño bokk liggéey moo tax waañ wi du doxé ni muy dox waaye nak walu drisé mbir mi nga xamné moy mbirum togg mi ak yu mel non am na ci nak loxo yo xamanteni bi lu ci man di xew mom dañ leen di déglu waaw suñu leen dégloo dal lu man di def buñ ko xolé ba gis né sax baxna na ci suñu xalaat leen di woo ñoom ba ñëw xoolal ko seen bopp ba doy leen ñu door a confirmer waaye mën nañu wax ne daal waañ wi waañ la woo xam ne lépp ngi ci biir bu ñu wax su Baye Fall dëggantaan daal mooy waañ wi waaw. am amul ci ñi ñëw ak ña ñëw ba dem. am nga ndam am nga ndam. jiitu góor ñaa jigéen ñi am nga ndam am am nga am nga sa kër maam dara a jiitu góor ñaa jigéen ñi am nga am amul ci ñi ñëw ak ña ñëw ba dem laak am nga nang am nga sa kër. bàkke naa la way la la tëgg laa. bëgg naa la sopp naa la topp laa yaa. bàkke la way la la tëgg laa tëgg laa. man bàkk naa la way la kañ la la bëgg naa la sopp tëgg la sa baali naa la maam naa la way la kañ

bëgg naa la sopp naa la topp laa la. maam sa cër bi tuutiwul sa jëf ji tuutiwul. xam nga may nañu la sa dara xeebuwul la. tëgg laa. sa jëf ji tuutiwul laa tagg laa bëgg maam sa jëf ji tuutiwul sa maam ba ngay lajjey ween na te kenn santuula waaye yëggal ni yàlla yi ne fàttewula na jarab ba ngay lajjey ween na te santuula waaye yëgal yàlla it fàttewulaa tëgg laa na jarak sa seet bi sëñ Mor Mbàkke xam sa diine xisa ku barke doon fi feeñal yéeneem yal na ko yàlla fay saku barke doon fi maam tibbal ta jox ko bul ko faate seddu ko malaxe yaam na maas gi ñépp ñee ko tibbal seddu ko yow seex mu tàbbi firdawsi dëkk ak seexul xadiim ak képp kuy murit te am xalbun saliim seexul xadiim na képp kuy murit salla ala xayri wara wa sallama wa alihi wa zabi wa karama وسلما ما صلى على خير الورى وسلم علي وذبي وكرما صلى على خير الورى وسلم وسلم Thank you.

yal na yàlla guddal fan yi lool Bakar waa soxna sa tongoogu laay mor mbàcc lañ jaay ñëpp jàmbaar lañ waaye moom jàmbaari soxna jaaru la waaye nag soxna Bintu dañoo bëgg nga bégal ñu ko rek bala ñu gën si fii ma ne ko Njaay ma fari say yal na yàlla indi mbëgg Aïda Samb soxna Satou Tall nee na mi ngi leen di gërëm ak ñi nga àndal yëpp. ndax nee na moom tubaarkàlla fu bari yaa ko fay demal te fu ma la yónnee rek nga dem. ah. jërëjëf soxna Bintu nee na wax ji mooy wax ku di Baay Faal bokkoo waaye nag koo xam ne it Baay Bàkke nga. nee na bu waxtu wi jotee na nga jàpp te julli fonk waxtu wi juróom ndax nee na kat loolu la ko maamam sant moom la digle di julli di jàpp fonk waxtu wi ku di Baay Faal la ko ca lool ndax maam Seex Aliw rek nga mën a wax Mbàkke waaw dagul ko rek mook mook mook soxna waalo bii daal waaw waaw dogul ko rek moom gerte moom ak soxna waalo da ngeen demee nag ah jàmm ñu ànd ak seen i borom kër yow nag ba lay sa da nga digle ndax tisbaari géej géej yooyu moom it tubaarkàlla mu jàmbaari Tuubaa ca kanam muy soxna Bintu Mbàkke wala seel na yàlla guddal fan waaw moom it kooku teewlu Baay Faal

dama koy murit war ngaa xam ni yaayee mu jaajam yàlla jaajëf képp kuy murit war ngaa war naa xam ne yaa

soxna Bintu jërëjëf wallaay dëgg la jërëjëf jërëjëf soxna Bintu kii Fama Fall di jambar lool ci yoon bi di jambar lool Mbàkke Balla ñu bëgg nga ñaanal ñëpp ñaanal ko waaw moom itam jëwriñ la muy soxna mu ci ndóoy laaj laaj laaj laaj ndóoy laaj ndóoy waaye siyaar bi moom benn mbooloo mi toll na moo fay والجواب وقال لأنه خيرك سوم السميان وأبو وقته يدوت هذا يدوت نخدين قال لاقي لي مخ وأنا نجين فوق ترك وقته يدلو دي جابت يدلي جرجف جرجف باتي جرجف جرجف باتي Yeah.

barke Serigne Mountakha Mbacké barke Serigne Moustapha ndian borom Dimoji ginaaw bi ñu sante yalla di julli ci sayyidina Muhammad sangu Sangi di wax jeuf Serigne Touba. kon ku yokk xam nga ku wañi ko xam nga te Serigne Cheikh Fall Mbawar yalla na fi yag te damay deg mu nan yëngu ak yok ño ño ñun ahlul murji talibi Serigne Touba yi roy ak rombo rek mo fi nek te ñun ñi war gor goru ba kenn duñu rombo dañuy roy. kon kenn ku ci nekk di sëñ Gana Messere di wax naan kuy xool bañ yëpp sëñ Tuubaa jaar ko ci yow yow am nga problème kon nag liggéey bii ñu nekk nañ leen ci way deng te am ci fulla ak fit ndax liggéeyal sëñ tubaa da ngay am fit da am jom da ngay am ngor liggéeyal sëñ Tuubaa boo ci nekkee bul xool loo bëgg bul xool loo bañ xoolal bëgg sëñ Tuubaa liggéeyal sëñ Tuubaa boo ci nekkee da ngay mel ni néew bu nuy sang néew bi ñuy sang dun yaag mooy gaañ dun yaag mooy wël dun yaag mooy def ni day tëdd koy sang kon ñun xam ne ay jaami sëñ Tuubaa lañ sëñ Tuubaa nag mbolo mi ko yalla fay seigne Tuubaa mo njëkk tek bakanam nafsi wa dini suma ahli wal walad wa maskani làkka wa di atun abad bako yalla fay nak seigne sëñ Tuubaa bin niko bindal simamul wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min mali khadibil amin kon nak seigne Tuubaa dimbalee nañu nu ne taxawon nañu nu ne liñu wara def nak moy di ko jukal way juróom wi nak di soxna jariyatullahi maryama li tax mu siiw daa xam seigne diko mamor maa ngi tuub ci kàddu gi yéex a xam sëñ Tuubaa ci saayir di ko lëggéeyloo màggalu deexale kenn dégg ko ko waaye baatin baa bari Cheikh nag day kamaal di rijaalullahi di baabul muridin di lamp fall kon nag mooy leeral fu lëndëm mooy bunt bi murid yi jaar ma Maam Mor Anta Sali yëpp nag ay jàmbar waaye nag sëriñ Tuubaa Cheikh moo xamee ker ci lëndëm Cheikh moo xamee ker ci lëndëm xam ne kii mooy sëñ Tuubaa mooy dimbali jaam ñi ëllëg mu ne ko ci yëxtee te kat Cheikh ma Fall ku déglu maanaam olofalam boobu mës nañ xibaar ak jébbuloom bay wax na yàlla mi ko moom moo ko ne Bamba moo moom raasi ko jox ko say pexe tegtal ko yoonu murit di aw baraw pexe mërit ba am ngërëm bari murit te dootu ree di tex texe loola nag ku ko dégg mooy Cheikh Ibrahima liggéeyal na yàlla ba sës ci yàlla rek waaye jamono dafa ñëw yàlla ne ko kenn laay wute wuyu naa Xaadim Rasul ba pare mu dem wëri Sëñ Tuubaa newoon na bu ñëwee fekk ko fi sax dana wër barabam ba gis ko di ko liggéeyal ba am ngërëmal yàlla kon ngërëmal yàlla rek la ñu wut kon ñi ngi ñaan ci kattan yàlla ngeen tamit sëriñ Tuubaa sëriñ Xaadim Seck mi nga xam moo moom waxukaay gii sama borom guddal fanam te wéral cëram ndax xale la boo xam fu liggéeyam sëriñ Tuubaa nekk rek dina fa taxaw kon ñun ñi nga xam ñun ñoo féete ci ginnaawam féete ci kanamam li ñu war a def mooy di ko gën a yëkkati yëkkati gi nag mooy ku ko soxla ku ne war koo mën a woo bi nga koy jotee Texcom TV moom wër na àddina bi yëpp foo dugg ci foo dugg xibaar yi gën a wér te leer image yi gën a neex a dégg TV Touba foo dugg ci YouTube bi di ko gis kon nañ koy télécharger te di ko déglu te xam ne kuy teg lu yàlla bëgg la kuy teg lu sëñ Touba bëgg la kooku nag boo ko amee mooy ku am kuddu rek doo lakk kon sëriñ Xaarim Seck Touba la ba ca Touba Mbacké nu ngi koy ñaanal sama borom guddali faram te wérali cëram te liy gën a yaatu bu baax a baax a baax a baax ba ay taala ñang sama ko bañ a gërëm yàlla dëggal تبارك تبارك برم ولتو وقوينا وكلنا وحبنا نحسن هتام ربنا jaajëf. barke borom Touba ak Mbakke Ndiarène barke maam Soxna Jaara di sant rek sunu borom di sant sunu borom bu baax a baax a baax sant yàlla ak yonent bi ci barke maam Soxna Jaara doon lee santaat rek soxna maam Bousso Lo mi nga xam ne moo yor daayira Touba Juwaalo yàlla boole ñoog moom. ñu fas yéene koo liggéeyal muy digal lu ñu xam ne sëñ Moustapha Bassirou moo ko ko dénkoon dénk nu ko ñun ñi booba ñun ñëpp a ngi toog kon nag lu ñu ci mun tey ba ëllëg suba ngoon guddeeg bëccëg ñun day dawaluñu kenn lu dul ñun Serigne Touba ka a ñu ñor ak maam Soxna Jaar fas yéene koo liggéeyal rek ba faw ba faw te ñaanal maam bu solo nag yàlla bàyyi ci sunu kanam. ndax njit la muñ na manduna na yaatu na maandu na kenn xamalu ko dara te bëggul kenn ko mer moom boot rek la man yilif na ñëpp góorgóorlu na ci ñëpp kon nag loo ñoo koy ñaanal daayiram bi yal na mel ni soorooru maam fall ci barke maam soxna jaara mi ñu liggéeyal yokk ba yokk ko ca kaw ak ca kanam rek sant suñu jawri mi baaja ndayaan am ci baaja nday ko am amul taloore na la baaja nday rek moo daayira bu mel mu kenn xaamul ko am kenn xaamul ko ñàkk ñun ñëpp saytu nañu attan nañu waaw buñ ca jógee di sant a Aan di sant Matar Aan ak ñoom Ibrahima Aan ñoom di sant leen mboolem ku jóge aaneen kontaan nañu ci ñoom suñu xol seet na guy ci ñoom yàlla seen taxawaay yàgg ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di kontaan ci ñoom kontaan goo xam ne am na fu muy commencé waaye xam fu muy yem yàlla seen taxawaay yàgg yàlla na ndoom ak yàgg ci tànkam a yaru na bëggum nit ragal na giir balaa baax day ragal ndiyaa nan jox a junni waaye noonu lay mën a mel baay tam mooy baayam bintu an mooy yaayam faatu an mooy rakam ndeyaan kenn gën mën naa jiite mbooloo kenn gën ko kuy baax di matti yaan susut suxurut iñaanut ablaay aan kenn gën ko mën naa mën na ñoo mën jiit tubarkàlla macha allah yéen seen jàmm mën naa seq Ablaye Aan yéen seen yàgg yéen ñu yàgg a jiite yéen ñu yàgg a ànd ak ñoom yéen yàgg a fekke yàgg a tenir yéen yàgg ñoo baax ñoo gore yéen ñu yàgg a jàmm wasalaam. YouTube dong la ko yóbbu.

Thank you. leen sant di leen jox seen wàccuwaay yéen ñëpp maa ngi waxee ci kàddu Fama Fall nee mu ngi leen di sant yéen ñëpp yéen waa mbootaayam di leen jox seen wàccuwaay yéen ñëpp nee na bu jàllee ci loolu mu jëm ci maam bu solo nee na moo ngi koy sant di ko gërëm ndax maanaam ku la jëmale ci wàllu soxna jaara moom deseelatu la dara te maam sa taayi wut sonnut heure bu nekk da koy woo heure bu jógee woo ko nee na daal sant na ko sant na ko yéen mbootaayam tamit nee na sant na leen yéen ñëpp ndax heure bu leen wooyee ngeen ñëw muy guddi muy bëccëg heure bu leen wooyee muy ñëw ngeen ñëw maam Kiné Fall maam Nogoy Ndiaye maam maam kii nee na daal sant na leen yéen ñëpp mère Maguette Fall ak mère Kana Mbaye yaa Nogoy yéen ñëpp nee na sant na leen gërëm na leen wasalaam. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim Ah, ginnaaw bu ñu nuyoo nag daayira soxna ja ah, daayira soxna maam bu solo Sawal ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di jiital ci nuyoo bi soxna maam bu solo ah di ñaan na ki nga xam ne moo ko santaloon sampaloon daayira bi muy sëñ Moustapha Bassirou yal na yàlla yokk leeram te taas ñu ci barke di gërëm nag soxna maam bu sa bu baax a baax a baax di ko sant te di ko jox wàccuwaayam lii mu ñu defal moom kontaan nañ ci bu baax a baax a baax a baax macha allah di ñaanal soxna Mame Bousso yàlla na ko fi yàlla yàggal te yàggal fi daayira bi yëpp ñëpp ñu ngi leen di san kuy ci rek bi ñi ci ay lañ mu soxna Fama Fall mi soxna Daba Fall soxna euh, Safit Satu total. ñooñu ñëpp ñu ngi leen di gërëm ak daayira ci suñu ginnaaw muy mbay lii nag waa Ndofane nag ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm te di leen ñaanal yàlla te di leen jox seen wàccuwaay tey ñaan yàlla mu bàyyi ñu fi ñu koy def ay daayira téeméeri daayira ak juróom fukk ah sant na ñëpp na gërëm ñëpp di sant soxna Fama Fall mi nga xam ne mooy suñu jëwriñ nag te nag tayluti te ngam lu wut ba cëg mi ngi ñuy soññ ba moo waral lii tey di sant ñëpp nag tey ñaanal sëñ xaadim mi nga xam ne mooy cameraman bi yàlla yàggal ko suñ kanam ba fu ñu daje mu fekk ñu fa yal na yàlla wéral ay cëram guddalu fanam jërëjëf. Faama Fall noo ngi sant noo ngi lay gërëm yaa ngi maam bu saloo ndax yoonu suñ Tuuba ak Seex Ibra moom képp ku la si boole sant ko ndax lii liggéey bu jëm ba yomal xiyaam la moo tax képp ku la si wombat rek sant ko te gërëm ko. réccuwun daal lu ñu doon ànd ak yow Fall Yang mampu seluruh cunun dan anda yo yang layak yow yal na yàlla yàggal taxawaay bi wéral cër yi barkeel liggéey ni di ko ànd ba di si ak sunuy sëtaat si barke borom Tuubaa ak mbokki talibe yi mbokki julit yi ngir ngeen mëna am ay xibaar yu sell bàyyi ko ci dëkk bu tedd bii di Touba ak li ko wër ak mbooleem àdduna bi wër ngeen képp abonné leen ci seen chaîne Texcom TV Bamba Texcom TV Bamba chaîne bu wóor ànd ak xibaar yu sell